salaamaaleykum nuyu naa leen. Euh, man seen frère Ousmane Sarr vidéo bi nag tey day ñëw par rapport ak sortie bi nga xamante ni nii kii di Ismaïla Madior Fall donc def na ko démb fële sa 7TV ak Maimouna Ndour Faye xëy na ñu bëri ñu ngi may envoyé bi parce que man seetaanu ma ko woon émission ba mu jeex muy wax ci ki nga xam ne moom mooy Didier si ak Fulbert Sambou Ismaïla Madior Fall nag boo ko dégloo ci biir waxam moom dafay confirmer wala dafay affirmer que ne donc affaire Didier Badji ak Fulbert Sambou donc affaire politique la te ñoom ñoom ñoo bi mu waxee bi ko journaliste bi danee loolu noonu dafay bokk ci li nga xam ne moom mooy am amnistie bi maanaam loolu kenn mënu ko topp ki nga xam ne moom mooy Didier Badji ak Fulbert Sambou ki leen rey mënul leen a topp parce que loi amnistie bi moom moo ko couvrir te bu ngeen xoolee loi amnistie bi lan la ñu wax mooy ay fait politique yoo xamante ni nii am na lien ak manifestation yi diggante 2021 ba 2024 donc kon ñoom li ñu doon wax que ne ki nga xam ne moom mooy Fulbert Sambou ak Didier Badji Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom ñoo leen rey donc loolu ñoom dañ koy confirmer waat te ma amoon benn vidéo boo xam ne defoon naa ko ma wax sénégalais yi ne leen euh, ki nga xamante ni moom mooy Didier Badji avant muy dee ki mujj a toogal mooy Macky Sall président de la République parce aussi di leen fàttali que ne Didier Badji moom lañ dénkoon lépp loo xam ne moom mooy enquête Jemsi ci affaire Adji Sarr maanaam téléphone u Adji audio yo sa nekkoon ñan la doon waxal ñan la doon jokkool téléphone Didier Badji mom mo yoron enquête bobu non té avant nga xamanteni ni si lañ wax ne si la disparaître tañ wax ne dañ ko rey te Ismaïla Madior Fall confirmer ko moy kané euh, Macky Sall président de la République le mujjé togal donc avant muy euh, dem li nga xamanteni mom moy disparaître wala avant ñuy dem diko ray légui nak nag euh, li lay xamal ne régime bi ñom ñaaw kee fi ñu leen doon waxal yépp du ay tuuma du lo xamné dañu bañ Macky Sall wala parce que dañ leena a rek moo ñukay wax mais li Ismaïla Madior Fall wax dem yéen ñep mën ngeen ko seetaan mu ne li nga xam ne moy affaire Didier Badji ak souder Sambou loi administrative, bi donc daf couvrir kon lolu leer na ka affaire Didier Didier Badji do affaire privée do affaire militaire mais affaire politique la parce que loi administrative, bi euh, l'effet politique ak manifestation yi nga xam ne diggante 2021 lépp lu lié ak manifestation yi te kon li Madior Fall dafay wax dafay mel ni

pour man actuellement ni yoon la pour que procureur de la république woolu ko mu wax ñu moom lan la ci xam ak lan moo tax ñu jël fee yooyu noonu ñu dugal ko ci biir li nga xam ne mooy fee politique yi amoon diggante deux mille vingt et un donc ba deux mille vingt quatre. kon leer na ne même ku dul di jëbbaati sax ñun ñëpp xam nañu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo dee di ay gendarme wala ay policier wala ñi nga xamante ni dañ doon xeex pour suñu réew keneen rey mooy Macky Sall donc ak ñi mu àndal donc li nag moo taxoon ma ne naa ñëw xamante ni nii kii di Ismaïla Madior Fall donc euh, yëkkati na ko démb fële sa 7TV jëf.